oublie une information judiciaire ici à Wakam sur la spoliation des terres de l'État et notamment les problèmes de la collectivité Lébou de Wakam sur son patrimoine individu parce que le tribunal départemental hors classe de Dakar peut liggéey ngir ay dossier Wakam yu fa né ajuma bi passé rek arrêté wagn arrêté wat nañ ben nit te nous ñu encore c'est sur les terres de Wakam, notamment sur le titre foncier 4417 17 ñuy koy wax Bandawsu nga la fa aussi Wakam alors sous l'eau passé donc ñuy wax di Daniel C'est kàddu bureau aéroport bi aéroport

jóge ci 5007 bi ñew ci aéroport bi 5007 bi liñ ci wax doyna aéroport bi Wakam dafa wara a d'autant plus que Wakam mom rek lañ indemniser wul won bi nga xamantene le régime colonial ñewon na fi di def ay négociations et à partir de là on dit que la loi 6446 de juin et juillet 64 portant code du domaine national moi la plus vaste entreprise de dépossession des terres lébou ici donc loolu noonu moi li nga xamante ne moo ci suñuy dëkk Bo ñëwee fi ci ginnaw ci mécanicien yi muy titre foncier 1306 bi aussi Wakam a ngi xaar pour que état bi buy joxe souf soosu Wakam yokku foofu parce que Wakam amul fu mu yokkoo tey le 1751 la ñuy wax muy 5007 bi ex 5007 DG super plateau nous ñu ngi wax aux nouvelles autorités encore une fois di leen ñaan ñu wakam di tojante si sauf deret di fi touru parce que deret bu beure beuri beuri touru na fi régime antérieur. alors buñu littoral parce que nañ lay fi mujjee comme dossier mooy géeju Wakam qui est un quai de pêche traditionnel foofu ku ñuy wax Fallou gay mu ñu fay sonal depuis jamono Ablaye Wade depuis jamono Ablaye Wade bëgg a un quai euh, euh, euh, quai de pêche traditionnel. soo demee fii si suufu mamel yi la famille présidentielle sortant Macky Sall famille beau boo frère am moo fa dugg ak gasama bi ñuy wax fii si titre foncier 1751 bi 5007 bi dossier est mom lañ yor un projet alternatif pour que la promenade des Mamel mo wara la promenade des Lebou, comme la promenade des Lebou, bi di juddou Rufisque si littoral dossier yoyu ñu ngi fi nous, nguur gu gi nga dañu bonne gouvernance parce que nous ñoy yor kaaraange dëkk bi donc ñom nous, les plus hautes autorités de la République parce que ñu dem tribunal ay juge ay juge Et encore, dans l'ancien régime, depuis Ablaïwade, le parquet du procureur a été corrompu. Nous en avons les preuves. Nous en avons les preuves. Parce que le procureur de l'époque, Mungifi, gars, ils sont venus de suñuy suuf dëkkandox ñun xanaa loolu weesul preuve nga yeewu di leen gis mais loolu moo am donc euh, amuñu dara luñ si ragal beneen bi nous en avons les preuves et les preuves sont dans le projet d'attribution que ce maire là avait fait et les preuves sont dans le document officiel d'attribution qui est, qui est estampillé par les autorités administratives que nous détenons. Donc on n'invente rien et nous avons le courage de dire que ces gens-là, Boufi a une pratique de malgouvernance à nyom Et il est temps que nous mettions un coup à la pédale. Heureusement, que nous portons beaucoup d'espoir avec ce nouveau régime qui vient de s'installer. Et nous interpellons M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar et nous interpellons son Premier ministre pour que Yifi Amon ay mars et février 2021 parce que nous avons besoin d'apaisement dans nos localités pour aller vers un développement efficace, efficient, endogène et durable. Je vous remercie pour votre attention de droits, de droits réels de propriété à des personnes ne possédant pas de titre foncier individuel sur le 1751. Nous ne parlons pas au hasard. La preuve est là. Je me garde, je vais, je taire le nom. Pour des raisons stratégiques. Quand on va au combat, on ne dévoile pas toutes les stratégies. Et euh, moi, je suis un combattant de euh, quand nous disons qu'au niveau du tribunal de grande instance, hors classe de Dakar, il y a une personne qui tente euh, d'acheter une parcelle ici à Bon, cette personne-là, avec son, vendeur qui est ici à nous les connaissons ces gens qui siègent au tribunal, nous les connaissons. Nous avons les termes de leur accord. La personne s'engage à donner d'abord à euh, acheter la parcelle à 55 millions de francs CFA. La personne accepte de libérer dans un premier temps 10 millions de francs représentant un premier acompte pour le démarrage du processus notarial. La personne accepte de donner pour un deuxième acompte 20 millions de francs. Ce montant sera versé quand l'état de droit réel lui sera délivré. les, deux personnes, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, qui résident ici à Wakam, se sont entendus pour le délicat en trois versements. Nous ne parlons pas au hasard. Ceux qui siègent là, au niveau des institutions, qui pensent qu'ils peuvent poignarder Wakam, que Dieu nous prête longue vie. Que Dieu nous prête longue vie le droit réel Mungini conservation de la propriété foncière bureau de Ngor Almadi titre foncier numéro 2010 de Grand Dakar ex 5007 DG reporté au livre foncier de Ngor Almadi sur le numéro 1751 NGA désignation lot 1045 terrain d'une superficie de 150 mètres carrés en cours de morcellement situé à Dakar, route de Propriétaire, M. X, il se reconnaîtra, né le 19 janvier 1968 à Dakar. Charge qui pèse sur le terrain, droit réel Ousmane Kassé, DGID, Moko Charge, prénotation, reportée, ordonnance 352-2020 autorisation de lecture reportée Mon en foi de quoi le présent acte état est délivré à maître bas sur sa réquisition le 8 juin 2023 il y a un autre document autorisation va m'occuper on a tout j'ai donné le document à Blaise c'est une de mes nièces, originaire de la banlieue, qui voulait acheter la parcelle. Ici à Wakam, aujourd'hui, dans le contexte actuel, est-ce possible d'avoir une, parcelle à 25 millions, 26 millions, ici à Wakam Quand même d'avoir acheté avion dans les bas-fonds, il faut 30 millions. Super plateau, 25 millions. De toutes les façons, Madame, Monsieur, comprenez une chose. Nous, population d'Awakam, nous vivons ensemble, ce que nous avons en commun, c'est l'équipe, l'Union sportive d'Awakam. Ce que nous avons en commun, c'est la perroque baptisée ici, Elage Moussa pour les régates. Ce que nous avons en commun, c'est que nous reste, c'est quoi Le symbole, comme dit Tidjan de notre identité collective, c'est le foncier. Le jour qu'on n'aura plus d'accès à ce foncier, qu'on n'aura plus la maîtrise de ce foncier, ça veut dire que ce qui nous unissait n'est plus là. Chacun peut paquer à ses occupations librement, aller errer. Je vais donner la parole. Ah, Tidjane Ndiaye ñu bokk journaliste yi seen teewaayu tey bi fii dafa nekk teewaay boo xamante ne nous ñu amal

point bobu lan la mbir ni suuf la terrain la bu nga xamante ne waa Wakam yépp ñoo ko bokk mu nekk une exception boo koy seet fii ci Sénégal exception bi lan la exception bi mooy titre foncier boobu dañu cee bind ne c'est un terrain boo xam ne ni ñu koy waxee dafa li ñuy wax indivision moom lañ ci def

ba def ci loo xam ne keneen waru ko mën a def loolu amul dafa am ñu jox benn groupuscule d'ailleurs tout à l'heure euh, Papa Diagne bi mu wax këyit boobu mu leen di wax bëggul tudd waaye ci biir këyit bi jaaykat bi jaaykat la ak jëndkat bu nekk tribunal waaye jaaykat bi ci boppam il est ci li ñuy dox nii ngeen xam ko donc li am mooy indivision boobu yoon waxul ne kenn ngi ci def dara déedéet mais yoon dafa ne buñ ciy def dara il faut que ñépp ñi ci bokk ñu ànd li ko tubaab di wax qu'il soit présent et puis ñu am joxe seen consentement loolu yëpp dara am ci benn groupuscule de personnes

jubul manam ba nga gën jalgati yoon dafa may ku sa titre nga dem tribunal c'est juge bu defal la ordonnance waaye pour nga def ko da ngay jëkk dem fële ci imprimerie ñu defal la lu ñuy wax déclaration de perte ñaar yoon donc bi nga xamantene ne ñooñu jot nañu uti ji ñaari déclaration de perte ñew dem seeti bénéfice juge yu ñu njëkk a seeti juge yu xarañ xëy na aussi def ci am ci bi ma ko liiree gis naa ci ay jigéen ñoo xam ne dama yaakaar ne dañoo may relation wakkaam ba xam nañ wakkaam ni muy tëddee jigéen ñooñu ñoo ci ëpp ñett la ñoo defe na ñoo ne ki indi di wax ne kii foncier dafa réer ñu ne ko yow de lan mooy sa qualité wan mu génne kayit wan ni ko fale ñooñu ne ko yow li nga ñu wan ci sa palin bii paline bi mu ngi amee si sa kër ak say nit du ñu sukkandiku ci loolu di jël sa déclaration di nangu ne titre foncier bi dafa réer ba di la may nga uti beneen titre foncier yooyu yëpp waa Wakaam ci dara en tout ñun ak nit yëpp yëguñ ci dara mu delluwaat fagaruwaat àndaat ak beneen avocat cette fois-ci nag ci la naxee juge booba beneen bi kooku bindal ko kayit mu dem ñu defal ko titre foncier loolu yëpp waa ci dara ñu ci dara ba mu foncier la dem commencé ni Papa waxee waa avons wax jox ko 8736 mètres carrés ñu fexe fexe ba jaar ci notaire jël c'est la première opération mais nous boobu ñu ko daggal Papa wax fekk suuf soo xamee ne valeur la boo koy seet mètre bi léegi mu dem ci un million nga jël ko nit koo xamante ne li mu liggéey li mu liggéey mënuñu prouver ne sax que waa ji li ñu wax ne moom la liggéey moom la liggéey waxatuñu loolu ñun ci suñu bopp montagne rouge bi bi ñu koy terrasser mais ñu ngi fay 25 cinq millions euh, ki ki ñu ko fay génn na àdduna manjoon bu yàggul Mandione Diop Mandione Diop dëkk Cambérène la diggante Cambérène ak Yoff vingt cinq millions man ni ñi ko fay chèque bi ci ñi ko signé ci laa bokk donc té kooku li mu defar moo ëpp téeméer yoon li nga xamé mom lañ ñu wax ne moom la waji ji liggéey ba fay ko 8700 8736 sept cent mètres carrés donc benn jangati mu ngi noonu alors ñu ne benn waay fofu ma ñom jëkkoon terrassé titre foncier la comme titre foncier 1751 bi yow boo ne damay jox damay régulariser titre foncier 1751 te wakam am ñaari titre foncier beneen bi di 68 69 te moom la ñu jëkk a joxe defar ba nga xam ne ña fa dëkk ñu nga toog di xaar pour ñu régulariser ko nga ne ko fi ñëpp ko bàyyi ko fi ne yaa ngi régulariser li nga xam ne moom la ñu mujj defar mais c'est que yow tu es mal intentionné c'est que yow am na njaay yow bëgg a nëbb c'est que yow am na loo bëgg def loolu benn la ñaareel ba waaw ku gardewul titre foncier yoruloo titre foncier mosuñu dénk sa maam titre foncier mosuñu dénk sa waajur titre foncier titre foncier nekk ci ay loxo ngay dem boo bëggee def njublam bëgg def lu jaarul mais da dem na dafa réer loolu mooy li ñu bëgg ngeen xam ko mbir mi loolu la demee loolu benn la ci.

ne fekk ne réunion bi def ci signature am ak mu taxaw tribunal ñu laaj ko mu ne fekkee mu yëguma tinuma yàlla defal ñu sutura mu am un premier jugement premier jugement boobu mais li ñu mën a wax yaakaar nañ ne doxal nañ yoon parce que ñoom condamné nañ leen ba teg leen daan waaw nit tribunal bu la condamné yow am nga sañ-sañu dem defi appel waaye ñun bi ñu yëgee appel bi mais musuñu xalaat musuñu xalaat kayit yi ni mu leere parce que titre foncier boo leen ne dafa te yow téewuloo ko am nañ ci preuve que ne yow téewuloo ko ñu yóbbaale ko wane ko autorisation euh, du moins benn PV assemblée boo def mu foo te nga ci dugal ak ñeneen taxaw ne du man juge yooyu ko def su ñëwee ba ñu dem appel waay waay beneen juge bu ko xool mais loolu da nga war a ci loolu mais boo ci de aussi nga indi ay firnde yu leer wane tax de ko firnde yooyu lañ wax ça me paraît suspect firnde yooyu lañ leen wax ni ñun looloo waral ñu woo leen wax leen ni dafa am lu ñu dox ci dëkk bi te lu loolu war taxaw

bon di euh, len sante sen présence di wax né gis na ci mbolo mi sànq ay nit yu dugg yoo il faut ma citer len notamment parce que c'est les cadres bouts du Cap-Vert ñoo dugg te ma ci citer Abdou pay donc mang ngi leen di remercier yéen ñëpp di wax ne alors ñi ma pratiquement brossé nañ point yëpp yi nga xam ne moom lañ bëggoon a wax man lu may def compléter un peu pour permettre à ce que la presse puisse poser quelques questions avant qu'on ne puisse lever la séance donc li may wax mooy ñun li ñu fi indi objectif bi lan la objectif est d'informer informer les autorités administratives et judiciaires informer population yi de de ni ak ñi informer les de parcelles site super plateau madame fi monument de la renaissance Nous savons exactement ce que nous c'est assez simple si nous explication yi nit ñi joxe ba parler. la haute administration sénégalaise quand je parle de haute administration sénégalaise nous avons des noms nous avons des indications précises et bien entendu il y en a qui ont utilisé des prêts noms Bon, on a une liste claire boo xam ne ki nga xam ne mooy woowee boppam jaraaf ngeen koy gis tout le temps muy sol ay mbax ne yoo xam ne kenn xamul couleur yi muy am moo ubbi compte wax leen ñu verser fa seen xaalis ñooñu verser nañ seen xaalis mais dañu verser seen xaalis mais xaalis bi ñu verser ki leen ko jox du Wakaam moo ko wax loolu Tidiane Ndiaye expliqué na implantation nu muy demee mais ñooñu seen boppal lañ doon wutal xaalis mais du wakaam lañu wutal xaalis parce que boo ñëwee bëgg a def loolu dem jël titre foncier wakaam mu ngi mel ni yéen kenn ku ci nekk nit ñëw sa kër sa papa am terrain nit ñëw ne terrain bi dafa da titre foncier ba dafa réer dem wuti beneen këyit duplicata moom la ñuy duplicata ci loolu moom lañ sukkandikoo moo ñu sonal ba fi ñu toll te loolu nag ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg loolu moom lu leer la leneen beneen précision bi may joxe moy bo dégué ñi ñi déglu na fi ben ministre bu fi nekkoon dama koy citer Abdou Karim Fofana mo taxawoon di ne non Wakam, mënuñu bàyyi nit ñi nonu rek il faut ñu régulariser il faut des papiers mais xam nga lolu wax bobu wax bu yenuwul maanaa la yenuwul mana. parce que titre bi c'est un titre foncier privé titre bi biñ ko liggéeyee ba pare comme Tidiane Ndiaye li mu wax li ñu implanté ñi nga xam ne dañu tabax mooy ñi nekk à droite boo leen demee site bi di ngeen gis ne côté droit am na tabax yu bari nit ñi liggéey nañ ba pare soit ay waawakaam a fa dëkk ba léegi wala waawakaam boo xam ne jaay na keneen këram koo xam ne yaa fa dëkk loolu amul problème pour ñun suñu problème mooy nit ñi bëgg a mbuba woo ñooñu pour jaay li ci des loolu mooy coow li dañ bëgg mbubboo ñi dëkk ci ñaay bi dina léegi non non non il faut les régulariser et malheureusement dafa am ñoo xam ne comprendre ñu dëkk nañ foofu des autorités des ministres des avocats des des magistrats la haute administration et cetera ñoo xam ne dañ fa dëkk di leen pousser di leen jàppale pour ne forcément dañuy lot dañuy def lotissement mais mais loolu loolu c'est injuste parce que koo xam ne yow dañ la jox terrain bi à un million deux nous, ne la dinañ toll da nga millions et quelques 20 20 ans Khalis boobu moom la Wakam, waroon Djel, des super plateau bi ñu quand même des infrastructures des projets structurants pour des générations et des générations nous avons utilisé. mais y journalistes un war ngeen xam le monument de la renaissance jàkkaarloo moom ñu koy ay mètres carrés c'est une honte pour le Sénégal j'espère que les autorités vont coup accepter duñ ko accepter parce que c'est c'est c'est honteux nga ñëw foofu di fa def ay kii yoo xam ne parce que simplement yaa ngi bëgg a jël sa xaalisu bopp def sa poche loolu wakaam heureusement que ñun en tout cas taxaw nañ ne loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg et xam nañ ne autorité yi leen di jàppale xam nañ leen parce que gasama laay cité affaire am 8000 mètres carrés dama ci dellusé gasama en fait Jaraf bi ki ma leen wax ne mooy wax ne jaraaf la sol ay mbaxne moko moo ben ben contrat mom kenn de mom cundum mo signer contrat bi tribunal jot la kayit bi mom rek mo signer dal ne gasama ñewal nga liggéey fofu ñu fay la mais loolu dan nit man na xalat alors que documentation bi ñu yore malheureusement buñ amone projection dañ koy wane bo xamné Abdou Karim Diop moko préparer dans ce document là 1958 bi Wakam beugé défar ne terrain bi dañ koy continuer di liggéey dañ def dara économiquement mais tribunal 145 personnes lañ convoqué tour yaa fi kenn ku nek ak quartier bi nga bok 145 ont désigné 5 personnes ne ont été ñi yéenay téye souf Wakam yéen a liggéey carrière bi def occasion le pour man d'ailleurs signale signaler présence adjointe au maire Yassé Ndiaye Yassé Ndiaye est ngi parce que papa mu ngi ci biir ci liste boobu loolu moo tax sama xel dem ci moom ñooñu ñu nous leen ne lii la ñuy def mais loolu buñ ko continuer woon mais ñooñu 58 mais nous ñu modernes quand même aujourd'hui on ne peut pas laisser des gens faire ce qu'ils veulent Youssou Ndoye kese pour le pour ne pas le nommer mënul ñëw signer un document à Gassama daal ne ko dañ lay jox dation en paiement on te donne huit mille et quelques mètres carrés et puis dation bi contrat bi boo lire, liiree dañ ko sante woon côté boobu bu fekkonte ne sax moom am droit signer contrat si contrat ba li ko wax mooy côté monument de la renaissance donc nga koy niveler ba mu yem ak boor beneen ba mais yéen dem leen fofu ngeen xol li fa nekk benn liggéey amu fa mais lolu juge bu ko gis bu fekkente ne tu es honnête tu es honnête war nga bañ lolu mais yàlla de toute façon moom nelawul yàlla gëmul nelawul parce que toujours seule la vérité est révolutionnaire parce que autorité fi jàll yëpp xam nga pap Diagne wax na ko dañu ñëw wakaam ne waaye dañ leen jox seen suuf taxaw ci aéroport bi yéenay def li yéenay def lële mais bu ñu tëgg bu ñu faloo rek commencé ñoom seen bopp ñoo séddoo suuf si et on a toutes les preuves nécessaires toutes les preuves aujourd'hui nag li ñu wax mooy mooy li am mooy ne ñun dañ am ay éléments yu wóor condamnation yi tribunal def bind na ko condamné ay nit ñoom ñu dem teggi condamnation lu ñu teggi condamnation malheureusement mais nan la nan la benn juge ñëwee taxaw gendarmerie ñooñu xam ne ñoom ñoo jaay suuf si ñoom ñoo dem jox gendarmerie benn document

mais ñom ñi nga xamné ñom lañ doon poursuivre ils étaient incapables de ramener le même document où il y avait le cachet de Naïli Kaba ils ont amené un autre ne limo mooy seen PV juge bi man y ci jox deug. mais Yalla, Yalla nelawul Yalla nelawul li wóor moy la vérité finira par triompher loolu moy li les parties prenantes yi nga xamné le ñu ngi ci biir dossier bi du ñu mukk